léegi ndeysaan Ami Collé cey matu sama jigéen ndeysaan l'infatigable matu inchaallah le 3 juin ñu ngi waaj le 3 juin inchaallah diggante Karbala ak Badayande eh Karbala ak Badayande de Badayande boobu le 17 le 17 mais incha allah. diggante musique ak ki nga xamante ne mooy Thiandoum 2. waaw nee naa loolu du yomb ñu ànd ceeg Ouzin production. borom mercredi ci dëkk bi. Eh, nee naa la kookoy borom mercredi yi kenn bu ko xëccoog moom. kenn du yomb. waaye kenn du yowit bii bi borom RTV. acca ñu dellu Boy Maroon ak Moudaay ne. mooy morom ak mbudaay ne Modou Isa xam nga luy mbudaay ci ci olof xaw ma lan mooy loolu de mooy benteñe eh buux na ko mu génn mais est ce que xam nga ni booy maroon démb ba tey ñëwul ci làmb ji xaw ma lan moo tax nekku fi moo tax balaa moo bëre mu toccal boppam démb ba tey ñëwul li daloon Tony Junior a ko dal ah dafa mel ni nag moo ko doon ndax sànq gis naa ko ñu mel luñ koy toj toccal daaneel boppam ñetti yoon door a dugg ci géew ay ca bii bi doxalal cof na tànk bi mu bañ cof na tànk bi mu bañ amul jàpp ngemb mu daane dina ko génneem déet booy moroon bañ na ñoom ñaar ba tey ndeysaan roofaloo nañu booy moroon jëm na ko biij mu bañ ma koy forcer mu remplacer ko gëm naa ni bu amoon lamb ji na bu arbitre bi àtte na leen avertissement Boy Maroon na ko plaqué na ko daan ko Boy Maron daan na ne waaw daan ko Boy Morone dafa mel ni mu ngi door a am victoire ndeysaan ba tey daanul benn defet la am démb ndeysaan ñu ñëw fii ci usine matu aca ñoom ñaar matu combat ma la usine technique Sélé Mélé borom Kaolack waaye tey ndeysaan Sélé Mélé dem Ndakaaru Njaay jël Jóob mook usine technique ñu jàkkaarloo loo namm ci bëre mën nga gis fii loo mës a gis si làmb mës nga mën gis fii diggante Sélé Mélé ak usine technique ñoom ñaar ña ngay demante aca da ngaa sonn mën naa ne aca usine technique bal na ko mu bañ plaqué mu bañ mu forcé ko da koy mu bañ attention avertissement pour kan usine technique sere na le Télé Melek usine technique usine ñoom ñaar ñu ngi lëwëtoo usine samp na loxo ba na muy bëree Télé Melek usine technique usine technique ak Sélémélé ñoo war a tase après Mamadou Gaskel ceinture rouge Amadou Dia ba léegi ndeysaan usine dafa am avertissement cey Papa Gueye Mouma Papa Gueye Mouma ndeysaan moo daan Baye Fall la daan Baye Fall usine technique Sele Mele Sele ngay jéem a forcer usine ak sele ba léegi ndeysaan mbokk yi ñu ngi yoon ci demi-finale bi premier demi final ba ngi noonu do ci Dakar ak Fatick ndeysaan Dakar ak fatik ndaysan Dakar rouge fatik bleu Dakar ak fatik Dakar ak fatik premier demi final ba ngi noonu fatik ak Dakar Mali Cheikh Sadbou Sarr. Sow Mali ak Cheikh Sadbou Sarr ndeysaan Sow Mali Sow Mali war na gënaaw de Sow Mali ak Cheikh Sarr ndeysaan Cheikh Sadbou Sarr. waaw mooy mooy boo ju gem bu bële bi. ndeysaan équipe nationale ca Mbapat ba moo fa ñëw toj ko ci poussière bi. Sow Mali ak Cheikh Sadbou Sarr. soow male ak Cheikh Sadbou Sarr soow male ak Cheikh Sadbou Sarr mooy premier demi-finale bi soow male Cheikh Sadbou Sarr arbi arrêté na ko avertissement Cheikh Sadbou Sarr avertissement soow male ñoom ñaar kilo jëlañ nee na soo male ak sa sar sar ñoom ña attention mu koy jël soo male jëm bala sa male nga jëm plaqué bañ na sa sar sar soo male sa sangeen faq na sa sar sar ak soo mali attention rëpp na lu xew mu koy jëwatal sa sar sar ak soo mali soo male ak sa sar sar arbitre arrêté na Avertissement. Avertissement pour Cheikh Sadbou Sarr. Avertissement Cheikh Sadbou Sarr. Cheikh Sadbou Sarr ak Mali. Cheikh Sadbou action au Mali. Cheikh Sadbou action au Mali. attention day tas César bi jël na ko jël na ko jël na ko yore ko si kaw doon daan na ko César bi Sarr daan na Mali César bi Sarr daan na Sow Mali César bi Sarr daan na Sow Mali César bi Sarr daan na Sow Mali César bi Sarr daan na Sow Mali